kër gi. xamoon nga ne dig ma gis dig ma 15000 francs ma lay woo jëloo ma. man maa mag 15000 bi nga may woo sama téléphone moo nekkoon moo di hélicoptère. ah hélicoptère di nga ne avion. nii ngay ñëwee ci kër gi. nii laa fi ñëwee. kër gi kon dina yokk ndax boo ma ko joxul dama lay tëggal baara mbay xam ne ba nga juddoo ba léegi mosoo ko dégg ci ngéwal gi. baara mbay du ma ko fekk ndax man lu ma tëggul baaxul te tëgguma ko lii nga sol nii mel ni sa kër daa ay barbateur wala bi ngay génn seen kër da ngaa tëg miir. xam nga yow bandi ba xaaw goraajo moo tax bu may ñëw fii damay indi accoutrement wu bandi Ah, bëgg a yóbbu sa xel mii nga xam ne man mi duma ko ñuy fooye vulgaire ma ak yow 15000 donc duma moroomam kon gaawa teel ni am nga am nga weccitu 10000 yow yéen ma la bëgg a def ma la ko defee say 30 000 ñàkk nga ko. waaye yow man yow kee eh eh, eh samay. waaye yow samay 30 sa bandaw bii ngay mel ni waa ñoom Maradona samay 30 000 jox ko. quinze mille eh, lu ma lay bëgg a xamal nga may ma sama jaam waaw quinze mille ju topp eh, xam nga la waaw woo bi ma woo jëloo ma boobu ba léegi nga dig ma ko mooy yeneen quinze defal naan yóbbaale nga samay sama sama carte d'identité tàllal sama sama carte d'identité yóbbaale nga ko man ngay jéem a nax tëñax nga pont pont boobu laa dul tëñax ndax miti na miti goo xam dama tëñax ko léegi na li ko guddal ak li ko gàttal sama diggante yow moo fi jeex yow yaa gis mbëggeelu bandi buy jeex man ngay waxal da man waaw waaw sama sama mbëggeel yow nga day jeex nga ni dama doon nooyal rek di Ah. dama doon di dama doon napp di fenantu dafa ma kay. yow maa maag yow ba dernier souffle mbaa lu mel noonu. Eh, waaw. diggante bi mooy nday jeex nag parce que ay diggante ànd ko wuyu laarul ànd ak kenn lii sama nday sax yow sama nday man daal mooy toog di togg sa nday di liggéey may liggéey man di la jox def diggante bi mooy nday jeex nag taatoo ndayam. rafet na lool te tey njëwal daje na nga yo gis nga kaaw xawoon naa ko fee mere sax day sa waaye ñu ngi doxal aar te jëg naa ko te daf maa fàttali sama ngone ma jël sama jarbaat bi du Mbaay teg ko ci wetam ñu ànd ànd bu rafet ma leen di moytuloo nag jóob daqaar gi ndax buggut kaaw keroog laa ko bett fii muy jëw kaaw ak gone ak mandikat gu bon solaar googu yow nag yaay seen yaay démb ak bërki démb yépp nag damay dégg ci kër gi ñuy tëgg di répété naan saaf sa baay saaf sa baay saaf sa baay amoo loo defaloon sa baay lu dul di ko saaf te ñun de suñu baay di dund nañoo ne ci ëtt bi naan saaf sa baay saaf sa baay saaf sa baay yéen amuñu lu ngeen ñuy faye lu dul nar ñoo saaf ak li ñu leen daj jàngal leen aar jàngal leen culture ngeen nar ñoo saaf lii daa ñaaw Ablaye Ndiaye cosaan way na ba tey lu mu masa way xam-xam la Adja nu koy jëre sec alaaji dëcc njaay la ilaha illallah xoola alaaji dut gay ñang ay waay ay waay waay nday sec na ko yàlla yërëm saaf sa baay nag saf sa baay ko gën saaf sa baay saf sa baay ko gën fekk man man sama wàllu ménage man man maa bëgg di def ay surprise am mbëggeel raf yow professionnel nga. Hmm. nga gis nga dimension de professionnel nekkul ay naan ñu fi nga ko teg du foofu. raf yaa nga ni sa butéel bi kii daf xamaj. Hmm. mais xoola yàgguñu ma ak yow. Hmm. mais lépp rek la nga xoo. si mu lépp leer na. a nga man dafa am benn surprise bu ma la war a taal nga xam ne ménageur gi nga ma fal faw ma si réew ma si caaxaanu ma la yóbbu Éthiopie dinaa la yóbbu Haïti dinaa la yóbbu foofu noonu kii Jamaïque. beneen bi ci topp mooy booy bi taxoon nga ñëw ma jox la ay saafaañ yi booy bi daje ak moom bi ma dajeeg moom xamal naa ko ni mbëggeel nee na daf laa bëgg dig naa ko caqi peme jaar naa supermarché jënd fuleur jox ko amur gaa ngay daw fu mu toll nii. yow ni nga bëgg a jàppe aar bi du noonu kon noonu nu jur waaye nag say wàll ak ñoom Ablaye Ndiaye coxtaan ak Kuli Jeng mm. seen wàll wéy mais li xam ne moo xew tey ci jamono ji li jamono ji laaj la ñuy doxal ngi dégg jamono jii ak ku lu ñëw ak jamonoom la ñun suñu jamono moo ñëw moo tax Baara Mbay jooju ñu tëgg ko créé ko maag sama doomu ndey ji yaa ngi dégg mais affaire bi loolu la papa mais bu ko jàppee ci Baara Mbay waaw ci Baara Mbay ji leen ko fen Baara Mbay moom démb ah mais du noonu nag waa kaaw nag man man daal kaaw nag waaru naa sa papa nag li wax moom burgéwal mi am na ah waaye nag yow tamit burgéwal ah. comme xale yi beuse la nii wut te sab sabaay beuse la ma defe ne xanaa ay ndox fi la loo tëgg nañ ko fi laata gay mi ngewal a ngi ngewal central loo tëgg na ko fi laata gay bu tëggaan baaramee rek a jooy lu ne la ci daan def lu ne la ci daan créé ah waaye nag xale comme dañoo am bëgg am bës doo leen bàyyi ñu tëgg nag saaf sa bàyyi nag saaf sa hamburger voilà yema relation bi xam nga ni ba ñàkk fu la la war ban yàq fa la laa la woon ku tax nga dem kër boobu dama ne lay problème. mooy yow lii la la nii. mais rafet xam nga lu mu door nga xam ñeme moo ko raf. Eh. yow raf raf ay raf raf. tooñ bëgg nga nekk nit man nga àndal man aw ma lu may tiit wala lu may ragal boobi xam nga lu ma wax bi ma ko waxee loolu ba pare. nee ñu ñëw mu toggal ñu mbaxalu ràcce defal ñu njaru soow ñu naan yaataa yumbe ngay jéem a nekk fii. man booy bu ma taxawal ni ak ku mënti doon <laughs> may tot sa bopp man ah, ah, ah, booy bi nee nañ ñëw dama bëgg ñu dem gàlla waaj loolu noonu pour dem ay rafay rafa xanaa xamu ni nga mo loolu ngay wax mais yow da gën a jël gën a am ma dama la ci créé lu bees ah loolu dañ dem ba yow loo bëgg a créé ci ma créé yo ko dafa rafetal sa yow mm. mu saf ndax yaa ko moom cër cër Pak. gis bre gis bre. mbedd la nag kañ yegg kër gi nijaay dogguma la yàlla bu la dee dog li nga wax loolu lépp dëgg la waaye nijaay jamono ju nekk la cay xew te ñun xale yi amuñu lu dul lii dëgg la ay ñoom maam Ablaye Ndiaye cosaan ñoom ñëpp jaar nañ fi ñoom maam Doudou Gueye ñoom ñëpp jaar nañ fi ñoom Kuli Jeng ñoom Kuli Mbay ñoom Mbay Gueye ñang ñoom ñëpp jaar nañ fi waaye ñun ñoo xew jamono ji muy jamonoy xale jamono ju nekk nag ak la cay xew te yaakaar naa ni seentu asamaan nijaay jarul buuxante te barki démboo njaay nijaay baaraam bay saaf sa baay bii yaa ma inspiré ci loolu man mii maa yow mii xam-xam daa bëri ndax yaa toog junior fii ci ëtt bi ah. di wax ak moom waaw ba ko sa pitax dinaa ko saaf mu ne ko mu ne ko boo ko saafee ma saaf la nijaay yaa ma inspiré ci loolu te doomu géwal day dégg te dégg gi ci yow laa ko jëlee yaa ma yóbbu ci loolu moo tax ma waxtaan sax mën nga cee inspiré moo tax ma indi ni baara may saaf sa baay maa leen inspiré kon la monde yàlla monde ñun ñu may sama nijaay waaye wii ma damaa defe woon ni eh? kenn topp am néew di sarxale bàyyi seet ah xam-xam baa bari loolu laa yaakaar na ba ma junior ne saaf sa baay saaf monde yi saaf la xoolal dama ne saaf sa baay. xare jàppal ma ñu may ci ñu may ci sama nijaay. dëgg la Baara Mbaye saaf sa baay. saaf sa baay waxal Baara Mbaye saaf sa baay. waaye Baara Mbaye saaf sa baay. ñëw wuraca wala wuraca wala tëj saaf sa baay. wuraca wala wuraca wala tëj saaf sa baay. sëñ bi rek sëñ bi rek mu jëm saaf sa baay. waay waay waay. waaw waaw waaw. waaw chéri li lu mu la fàttali. dem ko nangu nag ah, ba jóg Dakar gi yëgu ko yëngagu ko bu leen ko ko may nag jar na sax ngeen di répété ji CDEPS jëm wala centre culturel Dakar xel mais rëy bu ngeen ñëwee ma jox leen te salle de délibération